asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet niñ ko baaxoo di defee ak Lutte TV tey ñu ngi fii si arena Adrien Senghor tey nag Leeraan Kama moo fi tegal mbëri 500000 kon dañuy àndandoo dugg si biir xool li fi nekk. waaw ni ngeen ko gisee ñetti tirage ngeen gis si biir noonu waaw Aïdara Ndong fayaa ko fii la ko jël na ko Aïdara Ndong jël na tànk ba Aïdara Ndong booy fay boy fay Aïdara Ndong daan na ko daan na ko waaw booy fay jël booy fay fay ngeen gis noonu. waaw Boy Faye ni muy mujjee Boy Faye ni muy mujjee Boy Faye ni muy mujjee booy wër nañ Boy Faye ndombo wër nañ Boy Faye ndombo wër nañ Boy Faye ndombo waaw Boy Faye def na trois appuis wër nañ Boy Faye ndombo wër nañ Boy Faye ndombo ñu ngi dem si saaku yi ñu ngi dem si saaku yi ñu ngi dem si saaku yi arbitre li muy wax ñu ngi dem si saaku yi waaw booy Faye mbot na ko mbot bi rey na Boy fay mbot na ko mbot bi rey na Pape mbot bi rey na Pape Adja Adja koy jéem a tegal 16 Adja koy wetu Adja tegal Adja koy jéem a tegal 16 Adja daan na ko ah di ñooy champion bi mbër nuyu naa la. waaw maa lay fay bu baax a baax suma waa ji Boucar maa lay siyaar bu wér a wér. waaw démb ñu gis la nga ñàkk demi final tey nga ñëwaat di compétiraat. waaw xam nga loolu la rek affaire yi moom boo ñàkkee rek ñoo dabu si waat fii quoi que démb dem nañ doon tante mais loolu la yàlla dogal ñu dem rek rek génn demi final ñu ciy sant yàlla bu baax a baax rek ñëw fii di dabuwaat suñu wërsëg quoi. mais sim naa den ziare a den ñaana i ñaanana den rek wada ñaanana in itam ga daal i njeg ja mbir ne waaw Ablaye Mbaye ak Kout waaw Kout moo leen woon ginnaaw noonu Ablaye Mbaye moo féete Ablaye Mbaye ngeen jàkkaarloo noonu waaw Kout moo leen woon ginnaaw noonu Kout nag nekk ancien mbër waaye xam naa yaram bi moo mënatul mu làmb ji ndeysaan mu ñëwaat fii di compétiraat guut amul lu mu deful si lamb waaw day moñaat fii nii di compétir waaw Ablaye Mbaye am na ngemb Ablaye Mbaye koy jéem a jël Ablaye Mbaye guut Ablaye Mbaye am na ngemb xam na ngemb ba pare ndengeñ ko Ablaye Mbaye da ko ndengeñ ci dënnu Ablaye Mbaye ko jël Ablaye Mbaye jël na ko daan na ko man moom chaque dimanche maa ngi fi xam nga rek compétir xam nga waaw di ñaan yàlla jël affaire bi quoi jël lamb ji wax suivre naa leen te itam vraiment kontaan naa ci liggéey bi ngeen di def parce que itam au lieu ngeen dundee lamb da di dundal lamb kon nag kontaan naa ci yéen. Cheikh Tidiane Niang mooy bëre noonu waaw Cheikh Tidiane jël na ko Cheikh jël na ko takk na ko génnaat na Cheikh Tidiane Niang moo leen ginnaaw lu weex li waaw Cheikh Tidiane Niang Cheikh arbitre sifflé waat na Cheikh Tidiane Niang ngeen jàkkaarloo noonu moo yore ngeen bulu weex li Cheikh Tidiane takk na ko daan na ko Cheikh Tidiane daan na ko. waaw maa ngi si gañ sa morning bi comme combat amul waaw maa si gañ sa morning bi. jéem a jël Adja koy jéem a takk Adja jël na ko. Adja. Ady Dia daan na ko Pape la xare bi dafa bàyyi xel. tur bi naka la. Mercedes Mercedes. foo jógee. man Ngunjaan Ngunjaan. c'est la première fois ñëw fii wala. déedéet ñëw naa fi daaw quoi daaw laa fi gi. man nag Joola laa quoi mais lamb lay dund quoi waaw lamb lay dundal suma àdduna quoi war na yàlla. affaire séeréer yi daf ma nee trop. billaay wallaay talaay war na yàlla. lan nga mën a wax si bëre simple instant ini nii si Sénégal. bëre simple moom moo gën a dóor bëre arène sax ak ak lamb bëre dóor du benn sax lii moo gën a nekk quoi te moo ëpp ambiance lamb yi loo fay jar na ko. ay dara Boy Faye fii si arène Adrien Senghor Boy Faye nga jéem a jël ay dara nga koy jéem a jël waaye Boy Faye bañ na ay dara nga koy jéem a takk Boy Faye nga koy jéem a ay dara bañ na. Aydara Ndong Boy Faye Boy Faye nga koy jéem a mboot booy Faye nga koy mboot booy Faye nga koy mboot Boy Faye Boy Faye daan na Aydara Ndong Boy Faye waaw euh, man euh, pare bi ñu ñëw représenté dafa dem mission euh, à Paris suñu woon teeg loolu moom mooy jiite délégation bi comme ni mu ko defee woon daaw waaye nag mu boole ma ak ay xaritam ak ay mbokkam ñu ñëw teewal ko ci bés bi nga xam ne dafa rëy ci moom lool ndaxte daaw ñëwoon nañ fi ñu defal ko drapeau ñu koy mbay Mbaye ñu gën ko xam ci Babacar Gueye Diop mu nekk pos yàlla dogal mu dem mission mais mu am kóllëre bu rëy bu ko boole ak euh, ñi nga xam ne ñoo organiser làmb bi Sénégal lu mat 14 millions habitants ñu jukki ko ci tuddee ko làmb bi daaw ñëwaat leen ñu defaraat ko drapeau bi loolu dafa ci moom. ñaari xale yi bëri nañ bëri bu yàgg pap Mercedes da koy jéem a jël Mercedes daanu na Pape Mercedes da doon tenter daanu. <laughs> Pape ñoo ci demi-finale yi ñoo ngi ci Adija Cheikh Tidiane Niang moo leen féete càmmoñ Adija moo leen féete ndeyjoor Cheikh Tidiane Adija Cheikh Tidiane Niang Adija Cheikh Tidiane Adija waaw Cheikh Tidiane Adija boo seetloo nag ay tolloo nañu point normalement Cheikh daw na jël ko Adi sol ko Adi sol na ko Cheikh tegal na ko Cheikh Tidiane ñaa daan na Adi Dia Cheikh ñaa daan na Adi waaw fair play sport fair play lutte simple ku ne xam na ne jàmm lañ ci xam bëre foore ñibbi beneen demi-finale baa ngi noonu diggante booy Faye ak Ablaye Mbaye amateur yi satisfaction la ñuy bëgg woy yu neex tegu yu neex gaa yi bëre ñoo am satisfaction Boy Faye nga koy jéem a ko booy Faye nga koy jéem a jël Boy ko daan ko daan na ko Boy fay daan na ko Boy Faye Cheikh Tidiane ñaa final Boy Faye Cheikh Tidiane ñaa final waaw booy Faye Cheikh Tidiane Niang Boy Faye Cheikh Tidiane Niang final waaw waaw kokoy Boy Faye waaw Cheikh nee ko pare na Boy Faye ne ko maa la gën a pare waaw amateur yi lii lañuy gis amateur yi lii la ñuy bëgg di gis am satisfaction seen xol sedd gars yi nañ pare nañ nee nañ jarul woon drapeau Pape ñoo ngi ci final bi diggante booy Faye ak Cheikh Tidiane Niang Boy Faye moo leen woon ginnaaw Cheikh Tidiane ngeen jàkkaarloo noonu waaw di leen fàttali ne mais premier mai Yacine Thiar Yacine Sarr mooy tëgg le premier mais waaw Cheikh Tidiane jël na tànk ba Cheikh Tidiane jël na tànk ba Cheikh Tidiane ba Cheikh Tidiane Diallo Tamba waaye mais Boy Faye li def lii Boy Faye li muy def lii mais Pape Boy Faye li muy def lii Boy Faye li muy def mbaa wóor na Cheikh Tidiane mbër bu mag la de waaw waaw yaa sentu Sarr day tëgg le premier mai 500000 moom la tëggal mbëri fii si arène Adrien Senghor le premier mai nag ni ko xamee jour du travail la fête du travail kenn du ko liggéey. di woo amateurs yeeg supporters yi ñu ñëw jàppale ko si bis boobu noonu Cheikh tiijaan ña Boy Faye di ñaari champion yu ràññeeku bokk équipe nationale waaye tey teewul ñu ñëw fii nii di compétir waaw di leen fàttali daaw ñoom ñoo àndoon si tournoi francophone bi Boy Faye Cheikh Tidiane ña Cheikh Tidiane Niang Boy Faye Boy Faye nga koy jéem Boy Faye li ngay maye bëri na Cheikh Tidiane mbër bu mag la loo ko may da koy jël Cheikh Tidiane Boy fay Cheikh Tidiane Niang Boy Faye ñoo ngi déglu wante instant réflexion instant calcul ñoom xam nañ ne ku juum daanu Cheikh Tidiane Niang Boy Faye ambiya mene final na arène Adrien Senghor booy Tidiane Boy Faye am na ngemb waaw boo seetloo booy taay Boy ëpp rallonge Boy Faye am na loxo càmmoñ Cheikh am na loxo càmmoñ waaye Boy Faye nga koy jéem a dindi Cheikh Tidiane Boy Faye Cheikh Tidiane ndengeñ na ko bloqué bopp bi Boy Faye koy jéem mboot Cheikh bañ na. Cheikh Tidiane Niang Boy fay simna de passage monsieur Ambroise Sarr entraîneur équipe nationale waaw nu nga an tamoof nene pam Diagne Djilas a ref ancien gloire fa maak Diagne Djilas i simnan wene fop nen anduna ande fayo no njom nda taxe de ngaƴ njom waay waay a ngaƴanga njom sax mami njof ka njom i lamu njom i njegu Cheikh Tidiane a xotan Cheikh Tidiane mu koy jem wor Boy Faye bañ na Cheikh Tidiane war na ko ndombo Cheikh Tidiane war na ko ndombo Cheikh war na Boy Faye ndombo Cheikh Tidiane war na Boy Faye ndombo Boy Faye koy jema na ko ndombo Cheikh Tidiane war na ko ndombo Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Boy Faye Cheikh Tidiane nga koy jéem a tër Cheikh Tidiane nga koy jéem tër Cheikh Tidiane nga koy jéem tër arbitre sifflewul Boy Faye arbitre lu muy wax arbitre lu muy wax arbitre lu muy wax Boy Faye moo daan booy Faye lañ jox victoire booy Faye lañ jox victoire Kara ñoo ngi maa ngi leen di fay di leen gërëm vraiment di kontaan ci lamb bi tey kama kama produit organisé nag dañoo mun a gëm yàlla mbër bi na gëm yàlla maa ngi wax ne nag le 20 avril dimanche maa ngi woo amateur yëpp fii Adrien Senghor Mbayang Loum ak Momo cent waaw. waaw. waaw. baax